jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu ci bëgg jàmm dañ see bëgg jàmm waaye bëgguñu si loo xamante ne day daal suñu réew mi loo xamante ne day arrangé suñu moom dañ see jàmm yaakaar met na lool suñu moo suñu defar suñu moo ko defar kër bu ne suñu moo ko defar kër bu ne yaakaar yaakaar nañ leen yaakaar nañ leen day day day ñoom ñoom xeexaluñ kenn Sonko Sonko nekkuluñ Sonko nekkuluñ ñoom dañuy liggéey pour def seen poste wala ins daanaka ci fii ne la ñu nekk ins bi nii daanaka suñ suñ nangoo maam génn si yenn bagage sax dañ am bagage yoo xamante ne ins bi nii maam dañ koy biir ndax maam dara su amee ñu su ñu su mën a sóoraale bu baax ins bi daanaka Sénégal léegi maam léegi ci risque la ñu doxee quoi ci risque la ñu nekkee bàyyi nañ booy bi affaire bi mu bàyyi booy booy bi lépp jeex booy moo ci kan mooy Sonko waaw ah, mu bàyyi Sonko képp affaire yi jeex affaire benn baat la rek ah, Sonko daal moo tax gars yi def lii lépp lii 5M waaw réew mi neexul ba noppi boole si di jàpp nit xam nga di di jaay doole affaire yooyu daal moom bu ko bàyyi moom manifestation day gën a métti rek parce que gars yi dañoo am lu leen naqare yàgg nañoo am lu leen naqare nag mais dañoo sës ku sës da ngay taxaw. boo amee benn message boo xam ne ni maanaam da nga koy lancé looy wax jeunesse bi. ah xanaa ñu gën a góorgóorlu rek. takkaat laxasaay yi gën a góorgóorlu ku ku sunu borom jox ndam daal nga xam ne sunu borom jox na la ndam daal wax dëgg yàlla.